sama kër moo nekkoon juróomi juróomeelu kër yu ñu waroon a lakk et je rends à la euh, commissaire de police Mballo bu Grand Yoff et les forces de défense et de sécurité. Jànko Mballo ah moom moo nekk. waaw bu fekkonte ne keroog matuwaay ya ma waroon jël jëlu ko xëy na nag ñi ñii lii leen dal maag samay doom dal nañu parce que boo maay juróomeelu kër yi ñu waroon a lakk ñuy joxe sama kër di ko géolocaliser. lii am nii dafa nekk ci dixième ak